li xew ci réew mi coow li bàyyi woon na jeunes yi yëngu woon nañ naka nga gisee en tant que jeune euh, manifestation am ñi ñoo ngi yàq ñi di toj ñi di jël alalu jàmbur yi en tant que jeune naka nga gisee woon loolu. waaw ñun moom peut-être méttiwul nañ ko suñu biir xol yi ñi xam dëgg dëgg dëgg dëgg dëgg dëgg xam nañ ne méttiwul nañ ko suñu biir xol mais peut-être nag ñun dafa yàlla dafa dogal tamit ñun buñ jugee tey jii nii mun naa ne. ñu bari dañuy jóg te lu olof njaay di wax lu kenn mën a yàq boo àndeek mbooloo de yëpp ñi ñu mën a waxal waxtaan nañook ñoom ñi ñu mën a diisool diisoo nañu ak ñoom rawatina tey autorité yi nga xam ne ñoom ñoo dëgg fii metti na neexul ci xol jeunes yi li ñu doon manifesté di xeex di xuloo di yàq dimpaar ñoom seen dëgg lañ nekkoon li ñu moom lañ doon appliqué lu ñu moom lañ doon xeex waaye nag comme naam suñu borom def na si ndox mu sedd ba tey président Macky Sall delloo si waat xel yi waxtaanaat ak jeunesse bi parce que réew mi jeunesse si la jeunesse bi tey buñ mànkoowee xàccandoo dóorandoo rek maanaam bunt mun naa feeñ waaye li li nga xam ne tey jii ni moom moo waraloon lépp rek comme suñu borom def na ci ndox mu sedd rek sant yàlla daal di ñaan yàlla lu mel noonu bañ fi amati di ñaan yàlla loolu bu mu mës a amati li des dund ci dooley Serigne Abdou Karim Mbacké metti woon na trop nag di masaw ñi nga xam ne dañ cee génn àdduna di masaw ñi nga xam ne dañ cee am ay blessure parce que tey ñi nga xam ne ñoom dañ cee ñaax seen i bakkan tey bëggeewuñ ko woon noonu ñoom waaye nag yàlla suñu borom moom bakkan bu nekk fi mu ko yemale xëy na yàlla loolu la tuddoon quoi di si masaw seen i mbokk bu baax a baax a baax ñi nga xam ne dañ cee blessé tamit nekk si hôpital yi yàlla ñaanal defal leen jàmm kàttan na leen bañ génnaan mën a delluwaat seen activité si doole Serigne Touba mais metti na neexul. tamit toogaay bi dafa yàgg boo xoolee avant affaire yi di ñëw sax jeunesse bi mënuñu woon liggéey xam nga coronavirus bi ñëwaat xam nga gën a bés la bi xam nga gars yi toog toogaay bu yàgg léegi nag yu mel ni bu occasion amee gars dañuy ko quoi xeexaale seen indépendance waaw parce que tamit dafa metti daal kenn mënul wax lépp daal mais metti na trop man moom ñu doon génn di manifester tamit xam nga man wax dëgg yàlla man merewu ma ku dee ak sa bàmmeel mais nag man dama nekk doomu boo xam ne am na yu bëri man du ma si mën a feeñ am na yu bëri du ma si mën def parce que damaa weex dunk te nit boo weexee dunk nag am na yu bëri yoo xam ne da koy moytu tey ñaanu ma ko yàlla ñaanu ma ko yàlla te am na si loo xam ne bu ma si nit gisoon après du doon du loo xam ne tey jii nii si sa man lay yem. man nag ragaluma dara sama àdduna man ragaluma dara man yàlla laa ragal ak yonent bi ak sëriñ bi dund ma leneen. parce que xam naa ne tey fi nit ñi di tiit wala fi nit ñi di ragal man jomm ma te xam naa ko kon man ragaluma ko waaye nag dafa am loo xam ne tey jii nii man waratuma parce que soutien de famille la responsable la gisatuma papa gisatuma yaay ay mag yu jigéen la am ak ay rakk yu jigéen kon li ma mën rek mooy métti ko sama xol comme d'habitude ni ma def nii ma génn wax li nga xam ne moom moo nekk sama xol après ñi ma siy dégg dégg ma si ñu ma si mën a gëm gëm ma ñu ma si mën a gëm tamit di aywa ñu dem loolu moo si nekk mais metti na neexul daal. te su ma sañoon yu mel noonu dootul amati Sénégal wax dëgg neex yàlla Macky Sall jéem a xool jeunesse bi li mu bëgg mu nekk si ak loolu parce que réew boo si nekkee da ngay li jeunesse bi bëgg nga àndi si ak ñoom nit ki am nga droit nga am lu la metti nga génn nga kaas loolu am nañ ci droit kon yu mel noonu boo nañ leen bàyyi ñu génn ñu kaas seen droit parce que nit bëgg a manifester nga ne ko doo fi manifester loolu amul benn réew bu moom si àdduna te boo xoolee yeneen réew yi tey ji da gis nit ñi dañuy manifester policier dañ leen di taxaw nii ñu manifesté wu kaas yi nga xam ne moom lañ moom moo nekk si ñoom mais réew mi fii xam nga li li président bi doon wax jamono yee passé bëgguma gis lu xonk te ñun bu ñu amee lu métti lu xonk la ñu war a takk. xam nga loolu waaw loolu xam nga loolu daal xel nanguwul loolu daal mais nag comme ñu mooy suñu président pour l'instant lu dul ñu war maal ko jox ko cër bi mu moom daal. du ko ñaanal daal suñu borom defal ko jàmm moom it président Macky Sall mu delloo si waat te jàppale jeunesse waaw.